Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité la cloche de notification. di leen wax ne ñi ngi fi nga xamante ne moom mooy siège Malick Gakou ñëw ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Bombardier le roi des arènes ñi ñëw seet si ki nga xamante ne moom mooy Malick Gakou gannaaw bi nga xamante ne gis ngeen li nga xamante ne jot na koo def ci bitim réew muy MMA. mu gagné fa li nga xamante ne moom mooy ceinture bu am am solo mu ñëw daal di seet si wëlëreem mu ñëw seet si ki nga xamante ne kenn la ci moom muy président Malick Gakou ñu fas yéene euh, sargalante nuyonte rawatina ci tabaski bi ñu jógee looloo waral suñu teewaay fii mbokk yi fas yéene leen won lépp li nga xamante ne war na fee am également ñu waxtaan ak ñoom ñaar ñëpp bu soobee yàlla mbokk yi loolu yëpp fas yéene nañ leen ko indil yéen téléspectateurs Equivox TV yi. Gakou euh, Bombardier maa ngi siyaar. maa ngi lay delloo ziar moom frère di la wax ni namm naa la di la nuyu bu baax a baax avant tout aussi damay ñaan yàlla euh, li nga xamante ni tey moo xew si àdduna bi muy mbas bi yàlla jëlee ko fi ba activité yëpp reprendre at incha allah di nuyu si équipe bi nga àndal yëpp di leen wax ni kontaan naa aussi pour def ak waxtaan parce que euh, waxtaan nañ si lu yaato yaatu mais tey la ko yàlla dogal. donc ñu ngi ñaan yàlla def émission boo xamante ni waxtaan bu am solo la waaw donc tey xam naa dama lay bàyyi nga dugg si mais tey dama seet sama mag sama xarit waa xam naa nag dinañ gën a yaatal bu baax a baax. nga nga jóge France ñëw nga ne ma euh, sa première sortie bi ngay def di nga seet si sa mag. Euh, daal di ko présenter li nga xamante ne moom mooy euh, li nga xamante ne mooy ceinture bi nga jëlee bitim réew gagné ko nga représenté woon fa aussi Sénégal gépp lan mooy sa relation ak président Malick Gakou ba nga def sa première sortie nga ñëw fii. waaw loolu dinaa sawar wax si xam nga man damay dox si kóllëre damay damay sàmm kóllëre defe naa bi ñu waxtaanee boobu maa ngi France man ak yow ñu war a def interview ma ne la su ma ñëwee Sénégal maa ngi yow ñoo njëkk a def euh, ñoo njëkk def émission waaw moo tax bi ma ñëwee ma ne comme jox naa la sama kàddu yow laay njëkk a defee émission waaye tamit ma proposé la ma ni la dafa koo xam ni day kenn si man. di sama mag di sama xarit muy Malick gàkku donc lii c'est pas la première fois donc ay at yu ay at yu bari la defaat naa ko bi ma jógee Bercy euh, defaat naa ko tey ma am yéene ñëw tey seet si ko en tant que euh, ay frère ay mag ak rak seet si wu ko en tant que parti moom it xam na ni seet si wu ko en tant que mbër dama ko seet si en tant que ay mag ak rak yoo xam dañu am cofeel daanaka dañuy waxtaan lu bëri sax loo xam ne làmb du ci bokk. présenté mën nañoo wax mbuur moom mu nekk géejuwaay donte ni euh, dana jàppale euh, aussi mbër yu bari mais géejuwaay la dëkk mais relation boobu dëgër ba dara yàqu ci mu nekk géejuwaay ñëpp xam nañu géejuwaay am na mbër parfois am nga ci sax d'ailleurs adversaire mais relation boobu noonu mësta mësta mësta yàqu. noonu xam nga boo xoolee léegi ñu ngi siy waxtaan ma ak moom euh, dama dama toog tele ñëpp ñëpp toog may leen Malick Gakou. bi ma koy wax du at yàgg na ma ne leen dimension bi dafa dépassé ay géejuwaay rek waaw Malick Malick Gakou Sénégal ñoo ko bokk waaw pour man boo tuddee Malick Gakou ne bu géejuwaay kese kese rek kon dimension dafay gàtt Malick gàkku Sénégal ñoo ko bokk man defe naa ni ni mu mel géejawaay noonu la mel mbuur te tey man li ma wax rek li ma waxoon laay waxaat tey fi ma koy gis fi ma ko gis man waaw dafa dépassé ay Malick Gakou bu géejawaay kese waaw dama gis ni dafa war Euh, maanaam tey téye Sénégal si loxoom kon kooku dimension man dépassé Guédiawaye sama relation ak moom du làmb moo koy yàq du mbër moo ko yàq parce que nee naa la dinañ waxtaan lu bëri loo xam ni làmb sax du si bokk kon relation mag ak rakk la loolu lañuy ñuy dund man ak moom làmb dafay jeex ma continuer di ànd ak moom kon sama ànd ak moom mbër bu dëkk Guédiawaye ak mbër bu dëkk Pikine ak mbër bu dëkk fu mënti doon sama digganteeg moom du làmb moo koy yàq wala làmb moo ci moo si am benn benn ñagas-ñagas waaw. naa dinañ ñëw après yaatal incha allah ci euh, li nga xamante ne moom mooy euh, événement bi nga xamante ne si nga jógee ak ci li nga xamante ne incha allah si nga jëm le temps que ma gis président. waaw parce que li nga wax rek man bi may dem représenté wu ma écurie Mbour dama représenté Sénégal yëpp ma profite aussi di remercier parce que amoon occasion bi mooy sama mbokku mbër yi parce que bi may dem. kenn ku si nekk dafa def benn vidéo bu 30 secondes waaw souhaité ma bonne chance ne ma ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw tey ñun ngay représenté kon occasion bi bu amee dinaa leen remercier ñoom ñëpp samay adversaire lañ nekk pour Sénégal mais bi may dem di représenté ji sa di di représenté ci Sénégal ñoom ñëpp dañu fàtte lépp bokk ndey bokk baay ñaanal ma yàlla def tey ñu dem représenté Sénégal dem Angleterre gagné fa trophée kon trophée bi Sénégal ñoo ko moom mais maa ngi remercier sama mbokk mbër yi nga xam yëpp ñaanal nañ ma. voilà mbokk yi comme ni ma leen ko waxee ñu ngi ki nga xamante ne moom mooy président Malick Gakou ñu bàyyi ko mu nuyoog nekk mbokk téléspectateurs yi ñu yaatal salaamaaleykum président. maaleykum salaam maa ngi lay nuyu eh, di nuyu téléspectateurs yëpp eh, di ñaan yàlla lii nga xam ne ni tey jii mooy mbas mi nga xam ne nii dafa lëmbaaji àdduna eh, lëmbaaji Sénégal yàlla jëlee ko fii ni mu gën a gaawee mais aussi gën a continuer ñaax Sénégalais yëpp. ñu continuer di jël mesure barrières yi parce que quand même euh, lu am solo la euh, ku ci nekk ñoon jël say matuwaay ba mbas mi gën a wàññeeku ci réew mi jóge fi yàlla def suñu réew mu nekk réew jàmm réewu naataange réewu sutura ak réewu teraanga. amin yàlla ko yàlla def ñu gis nii ki nga xamante ne euh, moom mooy sa frère sa rak Bombardier gannaaw bi nga xamante ne tukki na représenté Sénégal. daal di euh, def benn compétition bu am solo c'est-à-dire combat MMA yàlla may ko ci ndam ñuy jokkoo moom mu ne ma sama première sortie bu soobee yàlla bu ñu ñëwee danañ ko def mais ci euh, président Malick Gakou lañ koy defee nan nga gisee euh, loolu. waaw maa ngi sant yàlla bu baax di remercier suma jeune frère Bombardier di wax ne li mu def sedd na sama xol ndaxte dem bitim réew di jongante. ba pare andi ndam lu toll nii pour Sénégal eh, nga ñëw Sénégal indil ma eh, drapeau bi indil ma ceinture bi je crois que loolu wane na ne nitu kóllëre la kóllëre gi nga xam ne ne moom laa sax moom dafa yàgg parce que dafa yàgg nekk suma rak nekk suma xarit ñi di ko doxal te ni mu ko waxee léegi rek eh, du kóllëre làmb du kóllëre politique du kóllëre leneen kóllëre diggante mag ak rakk la te ni ma ko jàppee comme rakk noonu la ma jàppee comme mag je pense que loolu c' est très important parce que moom ni nga ko waxee léegi xam ngeen ne Guédiawaye man dem am champion muy Balla Gaye mu nekk am aussi mais loolu musul tere moom mu jàpp ma comme mag jàpp ma comme xarit gis ngeen sax bi ñuy bëri ñoom ñaar euh, tooñ na Balla ne ko euh, Malick Gakou du Malick Gakou Guédiawaye kese kon loolu li Wolof di wax ragal féete day xañ wërsëg ñëpp xam nañ ne ku xam làmb rek xam ne ne Malick Gakou ak Balla Gaye benn lañ waaye terewul moom dafa mës a diggante sutura diggante kóllëre diggante mag ak rak sama diggante moom kon nag eh, tey jii aussi ma wax ko ne ko man it ni ma ko jàppoon démb ak barki démb tey laa ko ne jàpp ndaxte won na encore une fois que moom nitu kóllëre la nitu jom la nitu sutura la kon nag yàlla na ko yàlla saxal ci li mu nekk def ko champion te tey jii li mu def dafa honoré Sénégal honoré Afrique parce que am MMA dafa nekk lu nga xam ne nii Sénégal mosu ci am tur tey jii moom bu demee ba am ci tur ba ay rakam yu mel ni ay rëg-rëg ak ñeneen war a mën a jël euh, relève bi ànd ak moom di xeex ba Sénégal am ci tur ci compétition boo xam ne nii dimension fi mu toll ci àdduna bi euh, ak Sénégal fi mu toll ci lutte euh, traditionnel Sénégal yi war nañ mën a demee am ay champion yoo xam ne nii ci domaine boobu war nañ mën a gën a firndeel ne Sénégal ko sport la kon nag maa ngi koy remercier au nom de tous les sportifs di ko féliciter Eh, di ko encouragé di ko wax ne ñu ngi ci ginnaawam di ñaan yàlla aussi yàlla may ko ci yeneen ndam ba ëllëg ci MMA bi yàlla def ndam loo xam ne nii pour Sénégal xëy na Sénégal xaaruñu ko woon te lu ci mën di am ëllëg ngir yàlla ak liggéeyam ak jëfam la ak courage ak fulaam ak faydaam la eh, ma kontaan loolu nekk magam eh, ñu ànd ànd boo xam ne nii ànd kóllëre la ànd sutura la ba pare nekk àndu dëgg parce que àdduna li am solo rek mooy dëgg te lal moo tax bi mu ne ma tey damay ñëw seet la sama xol sedd na trop donte bi mbas mi commencé ba léegi kenn déggu mu wax ci benn média mais dama ne ko yow mënoo ma ñaan loo xam ne duma la ko may ndax vraiment lépp loo def rek xam naa ne li tax nga def ko mooy sutura mooy jom mooy fulla mooy aussi gëm-gëm ak bëgg sa réew kon nag yàlla na ko yàlla def mag yàlla na ko yàlla jàppale may ko ay succès yoo xam ne nii lii nga xam ne moom la mbëbët ci compétition yi muy waaj yàlla may ko ci ndam te ndamam mooy ndamu Sénégal il a relevé le défi parce que défi boo xam ne nii daf ko relevé pour l'Afrique relevé ko pour le Sénégal et je pense que loolu lu am solo la te yaakaar naa ne bépp doomu Sénégal bu gis lii mu def war na ko mën a féliciter war na ko mën a encourager. Euh, sa digganteeg sportif yi président. sa diggante sportif yi su ma ko waxee mën naa tudd làmb mais mën naa tudd ci yu bëri bi ci mujj ñu ngi dégg euh, li nga xamante ne moom mooy euh, sa li nga facilité combat Reug Reug ak ki nga xamante ne moom mooy guy gi sa diggante sportif yi parfois ñu dégg la ci nga rafetal lool lan moo waral lool sa bëgg sport la lan la. waaw mais xam nga d'abord ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañu te aussi nous sommes des xam nga li may wax toujours rek ne euh, sport bi li ma ci dugal. parce que doomu Sénégal la Sénégal xam nga doomu Sénégal bu nekk da ngay bëgg sport eh, te loolu moo tax eh, depuis Thiaroye-sur-Mer eh, fa ma juddoo pratiquement Pikine Guinaw Rail ensuite Pikine Tali bu mag Pikine Tali bu bees Guédiawaye ba dama nekk un pur produit de la banlieue nekk un pur produit aussi du mouvement sportif national parce que ci nawetaan laa jaar jaar ci championnat nekk président équipe de football pendant dix ans yóbbu Guédiawaye foo xam ne nii tey jii fa la nekk Eh, jàpp ci làmb ji jàpp ci basketball bi jàpp ci sportif bi lu nekk jàpp naa ci boo gisee nag làmb dafa bëri bayri parce que làmb moom loo ci def rek ñu ne def nga lépp mais à la limite boo xoolee li ma def ci football bi ak li ma dépensé xaalis ci football bi mosuma ko xalaat defar ci làmb wala ci beneen sport eh, donc mais eh, doomu senegal bu nekk da nga war a mos a bëgg doomu Sénégal yi jëm kanam te ko bëgg doomu Sénégal yi jëm kanam il faut nga nekk jàppale sport parce mooy li nga xam ne nii doomu Sénégal yëpp ko bëgg ñëpp ko fonk te aussi nekk na loo xam ne ni ci wàllu koom mën na andil Sénégal lu bëree bëree bëri te yaakaar naa ne fii ak at dina gën a andil doole Sénégal kon donc lépp loo xam ne ni wàllu sport la eh, dama ci jàpp parce que fépp fu xale Sénégal taxaw dama fa war a taxaw parce que ñun aussi dañu jaar ci ndaw jaar ci fi nga xam ne fa la xale yi jaar te xam nañ ne ku leen jàpp ñu dem parce que Sénégal eh, dëkku sportif la te yaakaar naa ne eh, sportif yi war nañ mën a yóbbu Sénégal foo xam ne nii Sénégal day gën a jëm kanam rek loolu moo tax warul kenn may jàpp ci yenn affaires yi c'est vrai que nag li may gën a def lu gën a bëri ci sama démarche diplomatie moo ko moo ko moo ko ëmb ndaxte en général du def di wax parce que je préfère toujours di def loo xam ne nii ci sutura la di jàpp ci sutura di doxal ci sutura parce que ñun doomu Sénégal loolu la ñuy mooñee mooñ nañu mooñ boo xam ne nag loo gis rek dañuy def dañ ciy def jom ak fulla ak fayda mais ak sutura aussi bu bëri kon nag jàppale sportif yi c'est un devoir c'est une obligation te je pense que ci loolu laa mës a nekk te doon lay continuer nekk muy ci làmb ji muy ci basketball bi muy ci handball bi muy tous les sports de manière générale maa ngi taxaw pour jàppale jeunesse sénégalaise te je pense que loolu aussi mooy sama cër mooy sama obligation te ci laay nekk tey ci lay nekk suba aussi incha allah. oui euh, benn benn benn combat bi nga xamante ne moom laa wax léegi muy guy gi ak ki nga xamante ne moom mooy Reug rek ñu ne yaa ko décanté mais est-ce que bi nga koy bi ngay woo ki nga xamante ne moom mooy guy gi wala di situation boobu est-ce que jafe woon na. waaw xam nga aussi eh, dafa nekk loo xam ne du sama cër parce que combat bi ñi ko décanté mooy ñi koy organisé mooy sama mag Youssou Ndour ak le groupe GFM ñoom Maodo Cissé ak eh, ñuy àndal yëpp je pense que ñoom ñoo organisé seen combat xëy na man am na peut-être benn petit role eh, diplomatique bu ma ci joué mais xam nga du da nekk jaadu ma toog ci télévision naan maa def lii maa def lii loolu moo ko defoon sax dina bett Sénégalais yu bëri parce que lu bëri ci réew mi maa ngi koy réglé te kenn xamu ko te kenn du ko yëg kon nag ci lii aussi même chose Euh, la ma ci def benn rôle bu ndaw rek la euh, mais je pense que ñi nga xam ne ñoo war a euh, ñoo jar a félicité mooy ñi am initiative organiser combat bi mooy le groupe GFM ma mag Youssou Ndour ak ñu mu àndal ñoom Birane ak l' ensemble du groupe GFM te quoi que ñooñu ñoo ñoo jar a félicité ñoo jar a encouragé di ñaan yàlla nag combat bi nekk aussi combat boo xam ne nii lañ ci xaar dañ ko gis Sénégal yi aussi lañ ci xaar dañ ko gis. voilà yaakaar naa mbokk yi comme ni ngeen ko gisee émission bi neex na. jël nañu euh, mën nañoo wax Bombardier lu bëri ci temps président xanaa ñu bàyyi ko mu tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi euh, mu dénkuñu dénkaat jeunes yi li nga xamante ne moom mooy euh, ay conseil président looy tàggatoo ak lan nga ñuy dénk en tant que jeune. non bi ñu nekk nii moom je crois que mënuñu dénk kenn lan dudul xeex mbas mi parce que olof daf ne bala nga ne tey jii boo gisee ci wàllu politique ci wàllu domaine bu mu mën di nekk wax ji néew parce que jëpp dañu war a jëf pour aar Sénégal parce que Sénégal bu amatul. politique dootu amati kenn dootul amati Sénégal moo ëpp doole lépp te tey ji Sénégal dafa am problème comme àdduna bi ni mu amee problème kon nag nañu fexe ñu ñëpp nekk dans la solidarité jàppalante eh, ba yokkante xalaat ba ku nekk ci ñun lépp loo yaakaar ne mën nga ko def pour protéger sa bopp protéger sa sa famille protéger sa sa koñ protéger sa département protéger sa ville ñëpp ku nekk ñun daxaw ci ba ñu boole suñu doole ñun ñëpp ba yàlla jële fi mbas meeg jàmm Eh, ba lépp jaaraat yoon Sénégal nekkaat ci yoon bi nga xam ne moom la war a nekk mooy yoon boo xam ne ni yoonu sutura la yoonu jëmale kanam la yoonu koom la ba bépp sénégalais gis sa bopp ci réew mi ci anam bi mu gën a rafete jërëjëf président maa ngi lay gërëm